je vais juste dire à Orange que c'est aujourd'hui qu'on plus déterminé maanaam tey lañuy ñuy gën a duut baaraam ci li nga xamante ni mooy jooyu askan wi parce que mënuloo ñu yaakaar ba pare yàq ñu su fekkente ni suñu njiit yi dañoo nangoo nekk ba léegi jaamu France ñun askanu Afrique duñu ko nangu comme ni ñu mën a mës a taxawee pour dire à la France que cette génération consciente cette génération libre bi nga xamante ni dagg na buumu dootul nangoo nekk dootul nangu bàyyi Afrique mu nekk la vache à laitière en France dinañu wëyal li nga xamante ni mooy talaatay orange ndax li ñu bëgg ñun consommateur yi muy neex orange muy naqadi orange dinañu ko am ñoom dinañ ko def par force parce que le client est roi mënuloo ñu yaakaar ba noppi yàpp ñu des fois da gis ñoo xamante ni duñu comprendre dañ la naan bu la ci nit naree fekk nga changer opérateur d'accord parce que xeex bi ñuy def aussi c'est valable pour yeneen opérateur yi tey orange la mais suba mën na nekk beneen euh, opérateur di dànkaafuwaale ne le combat il est valable pour tout autre opérateur mm-hmm. amul ma Samba amul ma Demba mënuñu ñëw jóge fu leen neex nekk ay multinationales ñëw fii dàquñu leen on n'est pas raciste dàquñu leen au contraire ils sont bien accueillis mais lan moo tax du ñu ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi di interpeller xaw ma interpellation lay doon xawma di leen fàttali bu bu fekkee ni mu ngi exister ba tey une association des consommateurs di leen wax ni lii normalement waruloon nekk sax suñu xeex ñun ñoom la waroon a nekk seen xeex. mais que gisuñ leen ci ñun dinañ ko jël xeex ko ba mu sëkk incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mardi bii di ñëw li ñuy teree dugal suñu lettre de protestation yi ci biir 23 agence su orange yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal mooy ñu bañ ca yegg mooy ci diggante bi maa ngi taal yi ñu faatu. wala ci diggante bi ñëw fekk ñu ci suñu kër yi këyir ñu dugal ñu ci police yi denc ñu waaye talaata bu jotati ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ boycotté lépp li nga xamante ni mooy service yi orange te du ñu ca yem dinañ yebal fukk respecté li nga xamante ni aujourd'hui mooy li ñu dal muy pandémie bi pour bañ a créer attroupement ak pour pour aussi continuer nekk ci li nga xamante ni mooy suñu ligne yebal fukk doomi aadama ci agence orange yi nekk fépp ci réew mi ñu dugal fa lettre de protestation boobu loolu mooy acte deux bi di wax orange encore ni ko ni ñuy mobiliser contre l'électricité la hausse de l'électricité di ko mobiliser ci suuf si di ko mobiliser ci yeneen yi di ko wax ni ko li ko may chance pour le moment mooy contexte bi ñu nekk mais bés bu takkadul lii delloo si tarif yi fi nekkoon avant le 22 juillet bés bu ñuy génn ci mbas mi dina gis képp kuy consommateur ci seen kanamu siège maa ngi leen di